am na lu ma wax léegi ci situation feebar bi wër àdduna tey ñu tuddee ko coronavirus boroom xam-xam yi joxe code Covid 19 muy jàngoro joo xam ni bi mu ñëwee ak léegi yàggul ci diggante mois de décembre ak mars wër na àdduna ba léegi tuddee nañ ko pandémie pandémie nag buñ ko waxee mooy amul presque réew bi muy tëb. te gis nañu ne réew yi gënoon am doole ñu yaakaaroon ci ñoom ne mën nañu xeex feebar tey ñoom ñoo sooxe tey jii boo demee Europe réew yëpp a ngi tëju frontières yi tëj nañ ko nit ñi liggéeyatuñu tey Makka tëj na buntoom ba benn umra mënul am démb ci guddi joxe nañ bataaxal ne dañuy arrêté gum mbiru aj bi ren bi xam fu feebar bi jëm mbir nag bu tolloo foofu dañuy fagaru duñu xaar rek ba mu dépassé ñu ñuy doog a jóg am na ñu yaakaaroon am xalaat lool wax dëgg yàlla ne xëy na nit ku ñuul sax feebar bi du ko laal ñu bare ci loolu lañ laqatu woon wala boog dëkk yu tàng yi dégg nañu feebar bi ñemewul tàngoor feebar bi tàngoor ak sedd la ci boole yem ku ñuul ak ku weex ak ku bule ñoo ci yem ñépp lay laal te li tax mu doy waar mooy dafa gaaw ci wàlle wàll bi moo gaaw looloo tax nag ñu war a fagaruwaat xoolaat suñu bopp ak suñu doxalin mbir bu amee dangay soppi doxalin pour moytu mu gaañ la ndax xejul ci benn réew réew yi ñu ëpp doole fuuf tey ji ils sont paralysés totalement école yi tëj na lépp tëj na kon nag sàggan dañu war a moytu ba xool nu ñuy moytoo en tout cas propagation muy feebar bi dugg ci réew mi loolu nag lañ ci war a njëkk moytu mooy ndaje yu bari yi ndax bu dajee baree feebar bi feeñ fa ku nekk bu ñibbee dëkkam daf koy yóbbu ci dëkkam su ko defee euh, day daal jéggi dayoo loolu war nañ ci waxtaan euh, ak ñi ci war a waxtaanal ngir ñu saytu bu baax a baax démb amoon nañu yaakaar bi ñaar ñi jotoon feebar ci ñeent ñi génne l'hôpital wér waaye diggante bi am na yeneen ñaar ba tey ji presque juróom-benn daanaka parce que waa kër gi nga xam ne ñoo doon dëkk ñoo bokk dëkk ak ki ñëw jóge Italie tey ji muy soxna yi muy doom yi muy jigéen yi muy ñi liggéey ci kër gi ñëpp jot nañ ci feebar bi loolu nag dafa laaj vraiment ñu bàyyi xel bu baax a baax moo tax nuyoo yi nee nañ mën nañ muñ ba ci kanam joxante loxo bu bëri beeg euh, voilà lëngoo beeg yooyu mën nañ ko wàññi ba mbir mi dem boo mënee joxe kudd nañ koy waxee sax conc conc mën nga nuyoo conc boo mënoon ba a nuyoo nga joxe conc walla ñaari tànk yi boog laalante waaw ñu xam ne ñu ngi nuyoowante parce que loxo dafay laal kanam da ngay laal sa bakkan laal say bët donc dafay daal di yombal euh, maanaam jot ci feebar bi te it mën mën nañu éviter di ko wàllante loolu moo tax ñuy joxe recommandation xam naa ministère de la santé ci fan yi di ñëw dinañu gën a waxtaan ak waa réew mi waxtaan ak kilifa diine yi waxtaan ak kilifa aada yi leader d'opinion ngir ñu yaatal ko vraiment sunu borom mën ñu si musal waaye nag fagaru ci la bokk ndax suñu borom moo ñu ko sant lépp loo xam ne mën na yokk feebar bi daal war nañ ko wàññi moytu ko ba yàlla indi fi jàmm indi ko ci àdduna bi yépp ndax tey ji lu lëmbee la ci àdduna bi te bàyyiwul benn réew.